waaw li ñu indi fii tey dafa nekk ndajeel bu am solo euh, di euh, mu jël ndaje si ndaje yu ñu def si lu mat juróom wala juróom benn région ya nga xam ne bi feebaru mbas bi jóge dañu ñu itam sol suñu daal ànd ak euh, agence nationale de la recherche scientifique di kuréel gi bokk si gouvernement bi ak waa ministère de la santé ñu dem seet fas fajkatu cosaan ñi nga xam ne ñoom la ñooy tradipraticien di itam euh, ñu ña nga xam ne dañuy dugal bu baax seen loxo su wérgu yaram askan wi ñu itam am nañu war a bay si xeex bi dëkk bi di xeex feebaru euh, coronavirus euh, ba ñu defee loolu région bu ñu dem ñu rafet du ko lool te itam dañu dem fekk leen itam ñanga Euh, moo tax tay ñu né nañu dajé ci région Dakar pour dajé la ñi nga xam ne ñoo nek euh, Dakar ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci fédération bi au niveau national pour gëna xam nu ñuy lekkelo ak tradipraticiens yi pour gëna xex xeex feebar nga xam ne moo jaaxal ñëpp. ñu jang ci feebaru Covid bi moy képp ku joggé ci askan wi rek am nga lo wara mëna japp ci xex bi parce que gis nañu né xex bi buñ ko bàyyee ak waa kër docteur rek du dem xam nañu ne itam buñ ko bëggee euh, xex bi ñu am si ndam faw euh, kurel yi nekk ci askan yi man communauté bi mo xam nit ñi ak association yi ak ñi nga xam ne nit ñoom lañu wolu wóolu et bokk na ci ñu ñu wóolu si seen wer affaire wér gëram yaram praticien ñom ñoom itam euh, gis nañu ne Sénégal am na ñu ñu si bëri ñi nga xam ne am nañu xam-xam mbir mi kat mbirum stratégie communautaire nga war a tëral mooy euh, euh, maanaam fa ñi ne ca gox ya gox ga xam ne ña nga xam ne ñii tey am nañu fa kàddu ñoom la ñu war waxal pour ñu wax ak askan donc yéex nañ ko def waaye je pense que c'est pas encore trop tard moo tax ñun ñu gëm ni ah bu ñu waxtaanee ak faj ak cosaan yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal gi yëpp wax leen euh, feebar bi lan la naka lañ bindoo ak naka lañ ko war a Euh, ñoom danañu mën a jouer seen rôle seen rôle mooy lan mooy xam nga askan wi boo demee ci gox goxaan yi nit ki ku feebar rek wala ku am problème rek ki ngay njëkk seeti mooy ki nga xam ne kii mooy fajkatu cosaan donc ñooñu bu ñu ñëwee fajkatu cosaan bi war na mën a sensibiliser leen ci euh, feebar bi euh, war na mën a dalal seen xel wala mën leen orienter maintenant vers les structures sanitaires. dañu yaakaar ne war nañoo aussi boole si yëf yi tradipraticiens yi. Euh, ndax gis nañu ne itam am na feebar yu bëri ñu ngay koy faj ci réew mi am na taxawaay bu bëri bu ñuy taxaw bu am solo bu ñuy taxaw si wér-gu-yaramu doomu moo tax itam ñu boole leen si liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey tey ñu ay acteurs yu am importance acteurs de premier plan. médecine traditionnelle muy fajum aada ak cosaan euh, lu yàgg la ci àddina euh, moo jur faju médecine conventionnelle bi. moo ko jur donc Sénégal nag liggéey nañ ci liggéey bu am solo waaye gëdd bu ñu waroon am amuñu ko après am nañu loi bu tëdd fële trois ans kenn voté gu ko te tradipraticiens yi organisé nañ leen léegi nag actualité moo indiwaat suñuy mbir Covid bi bu mu ñëwee réew yu am puissance yëpp jéem mënuñu ci dara ba fal la ñu dem sukkandiku léegi mooy ci fajum cosaan bi Madagascar trouvé Artemisia sen président loolu volonté politique la djel tisane bu médecine traditionnelle defal nan ko devant askan bi yëpp wan li lii sama faju aada ak cosaan naan naa defna ay résultats aduna bi yëpp djok donc ñom moo ñu woowaat ñu pour ñun tamit ñu indi suñu xam-xam te lenn am na mooy euh, fajkatu aada cosaan yi nek Sénégal Ben dañ ko donno ci seeni mam ay savoir la You traversé ay génération Et xam ngeen ne xam-xamu Afrique la plupart c'est une transmission orale noonu la xam-xam yu ñëwee binduñu ko waaye dañ koy jàllale par génération koo ci gis maamaatam maamaati maamam ñi ma àndal ak ñeneen ñi fi nekkul dañ ñi ci ndono dem ko ah donc xam di xam dosage xam lépp donc su mbas bi ñëwee tey ñu woo ci médecine traditionnelle lu leen war la. suñu implication ci biir mbas mi mooy ñu seet naka lañu ñu mën a def ba jàppale réew mi ci mbas mi ba jàppale suñu taxawaay doon taxawaay bu fees bu feeñ. engagement yi ñuy jël ne pour bu mbas mi jàllee ñu mën a continuer ñoom ca loola ñu ngi leen déglu dinañ xool.